match bi seetaan naa ko ah, ak eh, stress bu bëri ndax eh, xamoon naa ne am nañu équipe bu baax te Sénégal ñu bëri jàpp nañ ne ren moo war a gañe coupe bi waaye loolu loxo yàlla la nekk ñu am mbégte nag lool ci ndam la ñu am tey ndax gëjoon nañu dem final coupe d'Afrique waaye li ñuy wut léegi nag mooy ndam li mooy coupe bi loolu nag sénégalais yëpp ñoo ko bokk moo tax ñu ngi ñaan kilifa yi lu ko diine